wax ka ci lu gàtt ci wolof bi moom ngeen bëgg dinaa ko wax ci lu gàtt ndaxte waxtaan dafa am waxtu déeyante dafa am waxtu mais jóg taxaw xeex dafa am également waxtu le président xalifa Ababacar Sall bi may nuyu di ko gërëm nekk ci wetam tey ci attitude républicaine am gis naa jéego yi mu def yépp pour que réew mi nekk ci jàmm tey ñu ba ñu dugg ci biir bureau wu commissaire central bi ñu fekkee biir commissaire central dugg commissaire bi rombuñu dem ni dafa am lu muy def ci terrain bi loolu gënul wan te dama bëgg mu xam ni dama mu xam ni réew mi moomu ko président Macky Sall moomu réew mi bi ñu nekkee di wax di def li nga xam ni moom la mu dig président Khalifa Ababacar Sall génn dem bi ñu toogee léegi di concerté wu fii nii ci bureau bi lan ñu envoyé message kenn ci ñoom nii léegi lañ leen notifié que finalement arrestation la lan moo waral li fi xew subaak tey ku war wuyu ji convocation finalement ñu ni notifié nañ la arrestation lan moo ko war a mën expliquer lu dul jaay doole jaay doole boobu nag le ministre d'État waxoon na ko bi mu naan dina nasaxal dina enterrer cette opposition Mahmoud Saleh loolu nag la nekk di def parce que gis nañu la machine électorale bi Yewwi Askan bi commencé teg sur l'étendue du territoire national et may gërëm di sant di joxe en exemple les magistrats de Saint-Louis c'est des magistrats yi nga xam ni seen tour anal war na ko jàpp ndaxte cour d'appel ba foofu liñ fa dugaloon comme recours ñoom suivre nañu accepter nañu yeewi askan wi que ñu ñoo nekk ci yoon kon nag li ci des mooy wax ji mënatul bare ndaxte waxtaan bi am na déeyoo bi am na mais le président Macky Sall jàpp naa ni jàpp nañu ni bëggul jàmm kon jeune parti politique yi jeune organisation yi nekk ci yeewi askan wi population sénégalaise au-delà de ces jeunes bu kenn bàyyi kenn ci ñi nga xam ni ñoom la ñu jàpp ci yeewu askan wi mu passé prison mu passé la nuit prison mu passé la nuit commissariat bu ko kenn nangu parce que président moomul Sénégal mënul naan kuy bokk élection ak ku dul bokk élection mënul wax kuy dox ci biir yi ak ku dul dox ci biir yi dama koy wax ci wolof boobu ba tey bu naan que président de la république Macky Sall may wax président boobu ba tey du xam-xam bu mu ëppale nit ñi. du judd bu mu ëppale nit ñi du fulla bu mu ëppale nit ñi loi képp moo tax ñu naan président de la république loi boobu ñu koy nangul ba mu nekkee ci tali bi motaar yi dar ko ñun ñu wàcc xaar ba bu ñuy tardé suñu liggéey wàcc xaar pour may ko loolu loi moo ko jox loi boobu ni mu ko joxee loolu ñu koy nangul na fexe ba chaque citoyen lu ko jox mu nangul ko ko te citoyen yi loi moo leen jox ñuy manifester kooku droit constitutionnel la na nangul sénégalais yu droit yooyu bu ko nangulul jëlal ko suñu bopp te fa la ñu toll la ñu jëlal suñu bopp suñu droit maa ngi leen di gërëm du leen sant. ñëpp wàcc